dañ fi ñëw tey commission électorale nationale autonome euh, pour euh, laaj suñuy fiche de collecte de parrainage yi nga xam ne DG moo ñu ko waroon jox te bañ ñu ko jox euh, ci ndigalu ministère de l'intérieur muy Sidiki Kaba euh, ak président Macky parce que dañu gis ni Sénat ba nga xam ne moom dafa jox injonction DGE maanaam dafa bind bataaxal DGE ñun bu DGE bañee Sénat bind ko ne na jox fiche de parrainage yi euh, na ko jox mandataire Ousmane Sonko DGE tontu ko ne moo bañ moo lank du ko def loolu buñ ko defee euh, bu ko DGE dafee ñun dañu saisiraat Sénat pour laaj Sénat na jël ay responsabilité mu substitué wu DGE jox ñu suñu fiche de parrainage donc ci loolu nañ ñoo xool bataaxal boobu fu ñu ci toll Euh, est-ce que procédure bi fu ñu ci toll pour mun a jot si suñu fiche de parrainage donc bu ñu ñëwee léegi dañu fekk nag président bi dafa génn secrétaire général bi neeku fi euh, mais du tee ñu dellu si waat suba pour topp procédure bi topp euh, en tout cas dossier bi pour mun a jot suñu fiche de parrainage nu mu gën a gaawee parce que loi bi muy code électoral may na Sénat Sénat jël ay responsabilité lu DG e daful bañ ko daf te violer cote électoral Sénat jël responsabilité jox ñu suñu fiche de parrainage donc si loolu nañu nekk nii moo tax tey ñu ñëw fi ak le l'honorable député président Abbas Fall ak suñu huissier donc euh, pour euh, gisanteeg euh, le président de la Sénat ou les responsables de la Sénat dans ce cadre-là donc tey suba ñoo ngi woon Assemblée nationale ñu recevoir en commission des finances pour l'examen du budget le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba interpellé nañ ko ci problème mu fiche de parrainage interpellé nañ ko également ci décret ba nga xam ne Macky Sall jël na ko pour remplacer membre Sénat yi bu ñu ñoom demandé daf seen liggéey dañu daf seen liggéey demandé DGE mu jox ñu fiche de parrainage mu mel ni loolu sanction la donc buñ ko laajee amul dara loo xam ne tontu na ko lu leer wala loo xam ne mën na convaincre député yi lu mu ci tontu rek mooy waa DGE yaakaar naa lu ñu bindoon seen communiqué bi mais euh, tontu boo xam ne yow doo cité article doo cité référence juridique doo cité code électoral doo cité dara di wax loo xam ne naan euh, wéy décision de justice ba euh, juge Ziguinchor bu mu jël décision bi définitive wul donc dañu xaar cour suprême su cour suprême dogalee ñoom état dinañu appliquer décision cour suprême te loolu gëmuñu ko parce que ku appliqué wul décision justice euh, président tribunal d'instance mënuñu gëm ni di nga appliqué décision cour suprême même suñu cour suprême joxee dëgg donc ñoom lu ñu war a def mooy appliqué code électoral lu mu wax code électoral lu mu wax mooy décision su jibee ci wàllum contentieux inscription sur les listes électorales dañ ko war a appliqué immédiatement si saa si mais loolu nañuy bañ a def depuis le 12 octobre te loolu nag dafa mel ni ñoom ñoo ci lëkkaloo ñoo ci ànd ñoo ci déggoo pour jéem ñoo bloqué parce que soo ñëwee DG ñu ne non du DG daaf nga war soo demee daaf ñu ne non du daaf ministère de l' nga war te ñoom ñëpp benn kuréel bi la ministre de l' intérieur te juge bi bu mu jëlee décision mais dafa laaj exiger maanaam dafa santaane waa ministère de l' intérieur ak service yëpp ñu delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi si fichier électoral bi donc ñu ko war a def xam nañ leen nañ def seen liggéey delloo Ousmane Sonko ci liste électorale jox ko fiche de parrainage parce que loolu la juge bi wax. juge bi bu nga ko waxee tamit commission électorale nationale autonome bii nga xam ne mooy saytu lépp luy processus électoral laajaat demander également DGE mu def loolu mais DGE bañ na appliquer décision de justice mais bañ na appliquer injonction sena bi gis nañ nag waa Sénat ñoo ngi leen di jéem a xoqatal jéem leen jaay doole comme ni ñu ko tàmm dafee parce que membre yu fi nekkoon yëpp wàccee nañ la indiwaat ay membres yu bees te si membre yu bees yooyu gis nañ ci ñoo xam ne APR nañu bokk wala euh, en tout cas bennoo bokk yaakaar nañu ñuy kii. waa xam nga administration dafa am lu ñuy woowee continuité du service public ak nu mu mun ti demee administration daa war a continuer di fonctionner tey mënuñoo nekk ci biir processus électoral parce que élection yi démarré nañ ñoo ngi ci processus électoral ñoo ngi ci parrainage institution buy mel ni Sénat liggéeyam taxaw donc ñu fi ne ñoom dañuy continuer dossier yi euh, ñu fi bàyyi le temps ñu bees ñi ah mun a installé wu loolu mooy donc moo tax ñun euh, loolu tiitaluñu loolu jaaxaluñu moo tax ñu ñëwaat fi euh, tey pour xool dossier bi fu mu toll te nañ ko toppaat incha allah suba nañu ñëwaat topp ko ba fu mu mën a yem euh, incha allah lu code électoral wax mooy sena jël fiche de parrainage yi jox ñu ko pour en tout cas pour le candidat Ousmane ko